daa ah, sori. mi noonu. sëñ xaas. borom kaala gi borom jinne yi. borom jam-jam sumb yi. nuy waajal gi wasal leen bi ak daaru Habibi Daaru Habibi arbitre bi sifflé waat na ci diggante Apix ak jant bi waa jant bi ñoo sol mooy rouge blanc yi da koy ba ci lef gële mu téye si ko xool kan lay jox attention ba tey pour vibration profondeur loolu dégagement bi numéro 11 da laay see ay HLM jant bi HLM jant bi ñoo yor noonu bal bi HLM jant bi le numéro 5 le buteur attention longue profondeur pour qui tête pour qui attention renvoi numéro 2 profondeur na ko pour le numéro 14 da laay see HLM jant bi téye na bal bi lu muy def xale bi lu muy def lu muy def centre le renvoi du défenseur de applique and another food food Foot life is tapping. Attention. Isso é আঠাশো বাটাই kurang sih jangan bi sebut kayak kalian nama Job, ada orang bawa kau menemui sama jabati, menemukan. Bachir làkk dee boo demee du baax si ñoom njaboot bi mu tukkee fu ñu jëm taw rek laa dem ñëw rek ñu maa ngi maa ngi waaje ma maa ngi waaje dem Cap Vert su ma demee fu njaboot jëm ñu nag ñooy direct ñooy direct te ñoo mën direct te ñooy direct loola yàlla dogal bëgg direct bu leer damal Firi l'info soo bu leer Firi reportage bu neex Firi l'info loola yàlla dogal Isco Brésil sàmm naa la borom kap bi yaa ànd ak war a doy doxul <laughs> attention waa <laughs> jant bi léeg-léeg <laughs> loolu bal bi le foofu. waaye daa daa ko waxoon la meer tas kat ba waxoon ne ko day muslu cat Sadio Mané demul Qatar ba tey day muslu cat borom nay cat yee dugg cat yee bari moo tax tey dara doxul waaye loolu yàlla dogal attention centre ba égalisation oh, taxaw pop pop égalisation deuxième bi laa doon wax dama juum Basir dama juum dama juum attention attention da koy tull mu génn attention da lay yóbbu siif sa bal waaye taakale na la jeexagul ba tey attention ah xuna

attention lan ah, leer na. mi noonu. faute la foofu pour waa Cité Apixi. suma waxe waxee sama xel dem ci sama xarit yi nga xamne ñi ngi fofu mo nuyu leen baax bëgg leen dama ci fàttaliku sama jigéen ba benn perera man Modou Gueye damaa tukki woon doxal grand bi rek mu jox ma doxal grand boobu rek mu jox ma doxal mu jox ma ku bëgg a jënd na nga man yoruma tey lu ma jëndee damaa woon ñaari kaas laa yoroon ma ñëw waaw ah, non loolu la ma doon barkeelu Issa tey sama ma desaloon da ko jërëjëf yàlla ko yàlla fay waaw lii cate na de baax na pour wa Apexi attention day takale yobu sabal way day nangu

attention day téye si gi na lay def ñoom wa Pixi ñoo la non bal bi ci moy zone bleu yi day def attention zone noire da lay day dem day dem da lay laax laalo attention bu la fekkee nga dee xon na la ko su la mbir am ay bi ci ta Pixi o fi ci stade municipal bu ñak rob fi ni waxee fi la was bu bi ñëwee mo tax suñu yaram nan bëgg ba corner pour waa Cité Apixi numéro 14 bi moom moo koy teg pour dóor ko attention centre ba day tëb mbëkk jeexagul attention waaye finalement dafay génn simet attention Am Diop Iny jay loolu lay football waa ASC jant bi attention attention finalement da fay génn six mètres changement pour côté cité Apixi changement Je vais J'espère que vous avez compris le sujet de donné, car on pour côté Cité bi ko si jug nañ changement yi bari nañ changer tactique bi jéem a raxasaat équipe bi lu nooyul woon ñu nooyul ko lu baaxul woon ñu baaxal ko.

Allez, c'est parti. Défense, jant bi attention bu jàlloon musiba am waaye jàlloon taakal ba ba tey jant bi ay say jant bi jant bi centre ba attention jeexagul deuxième bal bi attention corner dama woor booy dama xeeba tey lépp naanuma te eh, dama woor attention attention oh pop pop pop pop pop pop Ai, parei. Você que que o que vai vai Seton Moore. Euh, Askan jant bi attention góol bi tëm na ba ci kaw jàpp ko encore jant bi centre ba ay jant bi attention day tëm attention orso

Abine pour wa jant bi jant bi jant bi attention corner waaw non loolu dañ fekk ay siège nag loge bi moom mooy Abdoulaye moy 1000 francs fay moy téeméer moy mak Sall lo leen ko tudd attention attention attention jéxagul jant bi jant bi frappe attention attention jant bi jant bi jant bi oh pop pop pop pop pop pop jant bi orzo

asamaan si yoonam nekku ci Thank you. suba doon zone douze moo organisé

Coup franc pour waa Cité Apixi attention pour waa jant bi attention Siteu ak Pixi day tëb mbëkk jeexagul waa jant bi dañuy téye si gi xool tudd ci kaam daw attention luwaat na ko kenn du ko rey nekku ci danger ba bi ñoom ñoo yor noon wal bi tulle jeexagul attention sifflé la doon jëm sabal hop hop waaye see jant bi encore jant bi moy équipe wad suma frère suma xarit mom moo ñu indi ci stade bi mom wad ma tool may saytu liggéey bi ndax xam naa am naa yaakaar bis dina ñëw ma ci kaw moo tax damay saytu liggéey bi fum mu toll xale dama leen yónni woon pour ñu def reportage ci stade bi tey waaye ken ñëwut loolu la yàlla dogal loolu la yàlla dogal te yàlla maaram ko sax ci level gi level gaay attention ndax uma bi top waye finalement day genn tout Jok attention pour bi moytu mu wëlbatiku mu ko may waaye ñoom dañ koy attention waaye dafay génn six dafa génn six mètres changement pour côté ASC Jant bi numéro six bi moom mooy génn jox numéro quinze bi mu ñëw joxe wàllam ci nar bi su ma quinze sama xel day dem ci ah Pixi kon su ma gisee quinze sama xel day dem ci Salif Diao moo daan léttu deux mille deux daan sol quinze xam nga ko ndax ku yàgg nga yow fekke nga jamono jooju fekke na ko encore double changement la pour Cité à Pixi numéro 7 moom moo dugg noonu ba tey pour waa jant bi attention na moytu day siif yóbbu sa bal waaye waa jant bi noonu jot na soccot apex si ñoo jaxagul da lay teggi benn ba na ko at bi na foo la foofu Alaaji Papa Ndiaye woo na ma na ma maa lay jiitu waaye gisuma ko parce ngi xeeñ waaye new yi sànniwuñu ko moo tax biir dugg ndax borom new yi tee new coup franc la bu baax pour waa Cité Apix ci mooy zone noire yi góol bi ñu sol mooy rouge rouge zone bleu attention frappe contre na ko ci miir bi la daal waaye jeexagul ba tey pour Apix waaye koy attention contre ba ñëw na attention day waaye waa jaa ngay ñaap ñaabu kanaara attention tous pour waa jant bi ñoom ñoo tous noonu numéro te si nga xool numéro 9 li muy def da koy pëdëxal ba fële waaye yàqu na milieu terrain bi moo ko da koy wëb ko jox ba numéro 8 bi mu téye si nga xool kan lay jox attention pour ASC jant bi day dem ASC si tapix si day téye si bal bi 6 mètres 6 mètres pour jant bi Allez, on Lebu gi Basi mooy sama gaaya attention c'est le but c'est le but c'est le but but pour euh, ASC Gadebu e, people I say can to be. Hey, solo people I say can to be. Thank

loolu dégagement nee na a jaab waaye arbitre bi tout franc tout franc maa ngi jël nit ki maa ngi gis nit ki tout franc pour laajte si te applique tout franc bu bëggee dugal nga ñëw si borom ne bu bëggee dugal nga ñëw xool borom new yi ah, ah. mu demee nii léegi waa ji zone yi nii zone yi nii morta balaa yi

Touche. Touche pour la cité Très long touche. Attention. lumidef Lumidef. dégagement très long dégagement touche encore pour mon avis, Tush por Fiat. Eu o sabe, número 3, que serve na fé do Tush. Sabe, número 3. Um dia que fez um long Tush. Très long Tush, tu sabe, número 3. Até Attends, peut-être pour qui Attention, la frappe Contré Contré Arrêtez le jeu. Arrêtez le jeu. Attention, votre rencontre, contre. Votre rencontre. ada telepon ya. Atau cokre. amul tapale koy woo na naa commencé am tapale waa bi moom dañ koo mëne ñaar lañ ko dóor ci benn dina ko jëli wala déet loolu la ñuy xaar. et sama papa la

oh raté na ko arbitre bi nee ko goneer na foofu alaaji Boy ci cadre gi def lo ma di def lu jéggi dayo fidel info da koy leeral Mor Gueye yow teel sa bu net bi télé bu leer bi boo ko xam fidel info la bu mag bi la scène de la préférence wala Fidèle Info Alaaji Pape Diop ñoo nga laa ziar ba ngi waajal gàmmu gi fii ci ñàgg xaw ma ñàkkaloo ci saatu gànn gànn kebe ah bu dee fii wasal leen amu fi fii wasal leen amu fi lax laawa ma fa am ak tëmbal loolu fi am fala jaaree nuyu sëñ Seck góol bu ay jant bi moo blessé noonu ci déedéet bu Cité APEX Sokoraak seen soixante douze heures tey commencé neen ci kanam tuuti leen di présenté yi ci guddi gi la waaye man dama sonn sonn boo xam ne su ma yeggee damay lafu ba demee dama jugee kaw ca tàngoor gi ñàkk ñàppet laa ko def attention jeexagul da koy tulli bal bi génn may naa ko waa Kasnack waa Casaville waa Ndorong waa Saara attention ñoom ñoo yor noonu ñoom waa Apexi su sottee contre lay nekk ñoom jant bi day dem attention jant bi jant bi jant bi encore jant bi jant bi attention góol bi jeexagul ba tey ay ASC jant bi ñoo bal bi day dem day dem attention ASC jant bi jant bi dalay lay laax laaloo corner bi wax ci luñ seetlu ci match bi ah, Cité APS dafa perte milieu terrain bi moom moo tax jant bi lu mu am da koy génne tranquillement te du yoon Modou Gueye effectivement loolu du yoon euh, APIX militaire dafa dispersé wu carrément dafay jéem a chercher égalisation moo tax militaire bi tam moo tax bu xoolee euh, léegi affaire yi amatul militaire défense attaque la défense attaque noonu la match bi di déroulé à ce moment euh, tous le moo am noonu pour jant bi jant bi touche pour APIX ci APIX Tidak habis. Pelong tush. Angka tush pur. Tidak habis. ada tush. Ada a elevar. Aro tush. Tush, ya. selain jam kapten nomor onze lah jam tush kapal bi, kalau pergi. Kalau yang kah, militer, api kerap kenapa nomor lima. Kapten di terlalu untuk kapten nah, eh, lah encore si di balon, ya na, ya na, mau tulen profondeur yoi, profondeur yoi kok. Le dégagement du défenseur, mais balle bi jël nous, et nous attention attention contre changement numéro 17 bi génn jox numéro 9 bi astaghfirullah numéro 9 bi moy génn jox numéro 17 bi Attention. Orso. kii la toog kii naan kii naan day summeeku ma ne ko billaay booy bi summeeku a jóg corner la corner pour l'ASC HLM Thiam qui mène deux buts à 1 face à l'ASC Guirassy corner sans tension à deux temps jeexagul jeexagul dégagement la frappe ballon file directement dans les bras du portier le portier de l'ASC avec le dégagement du portier ballon pour qui pour qui les joueurs de l'ASC avec profondeur waaw bu ñu wala man téléspectateur laay wax mais waxuma bi yéen la téléspectateur laay wax micro laat bi attention le centre raté touche touche. Wow. touche pour la Serie attention long touche. ma ngay dem ma ngay dem lu coup franc coup franc. pour le numéro 9 on rappelle que on est à la. On est au temps additionnel, match pratiquement qui tire à sa fin. Coup franc pour la Cité occasion pour se rattraper, occasion qui nous permettre de euh, revenir au score attention couvrant, place qui a Cité Attention, franc de tête pour qui Tête pour qui Renvoi. Attention. passe bu bon passe bu bon moytul profondeur bi dem moytul l'interception le numéro 9 moo bal bi loolu xale bi lu muy def xale bu mën a fubal ma ngay dem ma ngay provoqué ma ngay dindi ma ngay ay waay ma ngay ngay dem centré na bal bi laay c'est appui qui pousse pour égaliser coup franc encore c'est encore c'est appui Koufran. Koufran de la dernière chance pour la cité Apix. Koufran de la dernière chance pour la cité Apix. Attention. Attention, Belle Le portier.

Euh, le troisième match s'est terminé aussi par une score de 2 buts à 1. Euh, ASC HLM euh, Tianpi moo Cité Apix 2 buts à 1 Nous vous donnons rendez-vous prochainement sur la Fidèle Info Fidèle Info fi la lépp di xoym c'est fi la lépp c'est c'est, fi la di comme c'est c'est c'est c'est annonce wala nga am publicité Nous sur la Fidèle Info la Fidèle Info moi, la chaîne des événements la chaîne qui même les événementiels c'est la Fidèle Info lépp la fii lay xewee lépp lépp fii lay xooyam xewee ñu ngi leen xaar bu baax baax fi la Fidèle Info merci beaucoup jaajëf